شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه ci wàccaayu màggaluk Touba édition 2022 bi Serigne Mboup meex bu kaw Kaolack ànd ak conseillers municipaux yi ay membres cabinet ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi ak Union nationale des chambres de commerce du Sénégal ñu ñëwoon fii ci Touba Mbacké doon ziyaare si Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou xalif général des Mourides ci wàccaayuk màggal gi bi ñu agsee ci Daarul Minane gi nga xam ne fi la ñu fekk Serigne bi sëriñ buub sant na bu baax a baax sëriñ bi gërëm ko ci ñaan yi nga xam ne du dañ di ko ko ñaanal waaye sàkkuwaat ci moom ñaan ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci chambre de commerce yi. jóge Sédhiou jóge Casamance jóge euh, euh, Tamba jóge cees jóge Dakar ñoom ñëpp ngi fi ak waa mairie bi yëpp comme li nga ma waxoon rek bi ma fi ñëwee ci Kaolack gannaaw Touba ak Porokhane Kaolack mooy sëb dëkk. te gis nañ ni nga ko taarale kër ga mm. ba nga koy taaral danga nga ne laajoo ci dërëm kenn kon nag ñun li ñu war mooy góor góorgóorlu ba Kaolack na nga ko bëggee mu mel ko yàlla dimbali ci ñi ma àndal na fi ngay dégg ñu naan tata inondation yëpp alhamdulilah Kaolack bi yoon amu ko marché ba daan taa amu ko kon nag loolu ñu ngi la ci sant la ci gërëm ndax sa ñaan la ndax lu manti doon ba ma indilee kayit yi ba may dugal kayit yi fii laa ñëw nga ñaanal ma ba mu sottee tamit yaay ñëw ñaanal kon nag loolu damay xam ne lépp ñun yow lañ fi nekkal waa euh, kër baay Niass ñi ngi fi euh, Serigne Cheikh Ousmane Niass mi ngi fi Serigne xalifa bi yebal ko yëpp ñu ngi fi di la ñaan rek nga ñaanal ñu ci chambre de commerce yi rek wax ne ma wax la nga ñaanal ñu ci depuis ay at dafa am ay ay ay lëj-lëj te dañoo bëgg lëj-lëj yooyu de noonu rek laa la koy wax nga ñaanal ñu ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général de Mourides santaan bu baax a baax sëriñ Mboup ci taxawaayam ci pasteefam ci yitteem ay kàddu yu seere yu am solo yoo xam ne sëriñ bi def na ko ci jëmmam ji ak ay waajuram. mu ne alhamdulilah rabil dégg na kàddu yu baax a baax. mu ne yow su jëmm ji yàlla moo ko defal tawféex ci moom. mu ne sa diggante ak sa waajur mu ne sa ñaari waajur yëpp sax mu ne kenn ku ci nekk dafa am cër ci sëriñ bi mu ne yow it nga am sa cëru bopp ci sëriñ bi mu ne nga boolewaat ñaari cër yëpp eh, mu ne xelam dal na ci yow bu baax a baax mu ne amul lenn loo xam ne dafa koy tit ci yow eh, eh, mu ne ndax xam na ne lépp tawfeex sëriñ Tuubaa rekk la mu ne tawféex googu rek lay ñaan waxtu wu ne mu di la gàttandu mu ne ci biir ak ci bitti mu ne la ci des nag xelam mi ngi ci yow waaye xolam it mi ngi ci yow mu ne yàlla xam na ne yéene ji nga xam ne am na ko sa jëmm ji mu ne te du jóg ci moom mukk mu ne kon loolee na sa xel daal bu baax mu ne fii moom fii na fi sa xel daal bu baax mu ne xelam dal na ci yow mu ne day ñaan ndolle ndolle ci rek mu ne cër bi la yàlla jox mu ne sant ko baax a baax mu ne te fas yéene nekk ci li mu bëgg mu ne loolu nag am na ci yaakaar mu ne ndax xam ne yow lu baax rek ne ci yow mu ne leen nekkul ci yow santal yàlla bu baax te gën a góorgóorlu mu ne di ñaan suñ borom gën leen a gàttandoog tawfeex sëñ Tuubaa seen lépp di gën di yomb di gën di yàmb di yoon di yëwén di gën di barkeel mu ne suñ borom defal leen barke ci yëngatu yëpp loolu rek moo la na ne ñëpp tàllal seen loxo bisimilah. ginnaaw bi délégation bi bàyyeekoo ci Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ñëw nañ ci Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba moom it Serigne Mboup ak mboolem délégation bi nga xam ne ñoom la àndal bàyyi ko Kaolack ñu ziyaare ko mu sant leen bu baax a baax gërëm leen ci teewaay gi. Serigne Mboup maire bu kaw Kaolack noonu la ko amalee ci kilifa yu bëree bëri ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba ziar leen feddali kóllëre gi nga xam ne moo dox ci seen diggante li nga xam ne nag moo jëm ci bernde yi nga xam ne at mu jot Serigne Mboup dana ko yëkkati jébbal ko comité d'organisation bu grand magal bu Touba jàppale leen ci mbooleem li nga xam ne dafa jëm ci berne yi muy xeeti boisson ak ndox loolee indi na ci lim bu tàkk boo xam ne jébbal na ko comité bi. في كل شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه